within. ma rappelé ma ni non non non. déedéet Sénégalais dañuy seetaan. non da nga ne waxee loo xam ne wax naa ko defuma ko dama lay rectifier ci minute yi. waaw d'accord lu ne nga waxoo ko man ko ragal. léegi dama ni. voilà fii lañ toog yow ak ñu mel ni yow di wax ni tout ce part au dialogue dañuy trahir le peuple. waxaat nga ko léegi seen bopp moo leen tax a jóg askan wi taxu leen jóg. ma ñëw toog fii non buuba di non dama ne ma ñëw toog fii jàkkaarloog yow mais buuba sa débat on l'a tenu ici dire que ma ni sénégalais yi ñooñu seetaan que gëmuma ni dialogue boobu dialogue la c'était pour valider candidature ak trahir le peuple c'est deux choses complètement différentes buuba non fii laa ma wax loo lu waxul dama ne je n'ai jamais dit que Khalifa Sall tu as trahi le peuple man amna lo xamné xam ko génne sama gémmiñ il faut nga dit ki soo koy tuumaal nga wax ko lu mu wax dire que gëmuma di dialogue bi vrai dialogue la dañ ko def pour meuna bok ci élection ak dire que vous avez trahi le peuple ça n'a absolument rien à voir wa les mots ont leur sens dama bëgg mu leer man ragaluma sama non bo paree rek saa yoo saa yoo ma waxee loolu waaw dama né quand tu aura fini nga jox ñu ñu wax pare nga lool mo la tax jox dama lay wax rek dama né pare nga dama né bouba le débat autour du dialogue à jàkkaarloo man ma ñëwoon fii la talk. j'ai listé les points. Il motivé woon président Khalifa Sall dem dialogue. li nga wax nii ni gëmoo ni c'est un vrai dialogue. non laisse-moi terminer non mais bouba dama bëgg nga déglu ma. da nga bëgg ma déglu da ngay wax ma ni tekk. déedéet ma. non non non accusé gu ma mais non mais tu vas me laisser parler. mais boo ma accusé dama lay arrêter boo ma nee yaa wax li taw waxuma dama naan waxumako li la wax. Bouba quand tu dis que c'est pas quand tu dis que ce n'est pas un vrai dialogue c'est un deal merci quand tu dis que c'est un deal sur le dos du peuple tu as trahi le peuple on va dire les mots tels quels Fille là to, fille, moi quand tu dis ce c'était pas un vrai dialogue c'était un simulacre de dialogue qui n'était motivé par pas du tout motivé par pour le bien-être des peuple sénégalais mais non je que propos. ils ont trahi le peuple. mais ils ont sur le dos du peuple quand tu dis sur le dos du peuple trahi le peuple. mais non mais non mais non c'est il va falloir que dans ce pays là que les gens apprennent à s'assumer. C'est jusqu'au bout assumer la mani Mani, ne Khalifa Sall

xam naa ni xamoon naa ni foofu mais j'ai pas dit que ces gens-là ont trahi le peuple. ça c'est des mots forts. autrement dit. pour nga xam pour nga tu man man li ma seq ak Khalifa Sall. Khalifa Sall non Malal Malal Malal. déedéet déedéet déedéet bu waxuñu la ko buy la ñu la accusé benn Malal saa la accusé benn affaire Khalifa Sall Khalifa Sall daf ma jàngal école du ma taxaw ne ko Khalifa Sall yow yaa trahi peuple bi il faut retirer ça mu ngi may dégg sama professeur la woon je, je peux ne pas être d'accord avec lui mais waxuma que tu as trahi le peuple c'est des mots forts Donc il koy retirer parce que je n'ai jamais dit ça. retire que dalle et tu vas finir par te calmer. parce que faut que c'est toi qui dois se calmer. arrête de me de me bu ma tiiñal loo xam quand des ah, gens c'est pas possible ça. quand tu dis des gens sont partis man samay wax day leer de musuma fi dépassé kenn. ne ma ko yow tu as trahi le peuple. je n'ai jamais dit ça man du tenir propos yu mel noonu man dañ ma yar. mun naa wax luma xalat dañ ma yar duma xol Khalifa Sall ma ko tu as trahi le peuple du sax samay mot? meun nañu baña d'accord meun na baña mais meun ngeen dem dialogue ma ne man gëmuma affaire bi wax fa deug yalla mais duma xol Khalifa Sall il me connaît xamna mo bu ba avec tout le respect que je lui dois ma taxaw jàkkaarloo mom ah ma ñew ne ko tu as trahi le peuple c'est des mots forts C'est pas parce que d'accord, ma ci dialogue bi que dama ko ne tu as trahi le peuple ah mais arrête faut nga arrêter D'accord, accord ma si loolu quand je dis ceux qui sont partis au dialogue ne sont mus que par leurs intérêts personnels yaa ngi askan bi taxu len jóg gëmuma dialogue c'est un simulacre de dialogue moy dama la mais dégluwuma man yow lay ko mais dama wax te yuuxuma yow yaa yuuxu man yuuxu boo ma accusé ma yuuxu la dama ne voilà man dana que reformuler tes propos ah, non non parce que ay mots yu may utiliser le der xam nga bo taxawé né yow ya né Khalifa Sall tu as trahi le peuple ça c'est des mots forts hein

man musuma manqué de respect nit fii musuma fi wax nit luma la war ta wax mun naa bañ d'accord sur une position mais je suis très respectueux envers ñooñu surtout nit bo xamné bu doon ben deureum xam-xam sa dugal na ko sa bopp bi. waaw Choumi TV mi ngi leen di nuyu Choumi TV mi ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen ñaanal jamm ak salam j'espère que ni vidéo bi fekk na ñep ci jamm mais kon ne encore une fois di leen rappeler ñi nga xamanteni ñi ñu ngi door a chaîne bi Choumi mi ngi leen wax rek ñu welcome back to the channel yéen a ma gën xam. mën naa nekk am rek ñu koy faral defee waaw obi nag ñu ci bëri si yéen sama gars yi dégg ngeen débat bii nii you know sincèrement bii ma la première fois ma gis émission jàkkaarloo yi film mi mu mujjee nii quoi situation yi ñoom seen émission bi lu ci bëri dañuy dàggasante quoi jégal ma nag waaw c'est une émission boo xamante ne bu fekkoonte ne organisé nañ ko normal mun naa ne ñun les sénégalais dinañ ci jëriñu parce que sincèrement soo xoolee seen plateau bi sax ñi fa toog ñëpp mun naa ne ay borom bopp lañu mais malheureusement ñoom duñ dégloon di seen biir mais nag man moom su fekkente ne am na message yu may envoyé Boubou Ndour rek laa koy envoyé quoi man dama koy wax ne ko frère sincèrement mun naa ne daal tu n'as même pas à t'excuser quoi sincèrement amuloo sax toog naan da ngay excuser wala da ngay jégalu da ngay leeral. yu film yi a ngi sóoraale ni peut-être xëy na jëmm jooju mën na la jàppal dara wala mën na la mere mais du mujj fenn waaw sincèrement quoi li nga génne si gémmiñ ni wax ko Sénégalais gis nañ ko Sénégalais gis nañ loolu moo yu fil mi sénégalais yëpp xam nañ ne Khalifa Sall a trahi son peuple loolu ñëpp xam nañ ko yu fil mi Macky Sall jékki-jékku la ko toppee noonu quoi ñu na am seen ci ngelaw Macky Sall dafa yor ay dossier Khalifa Sall yu bare bare bare waaw pour yenn sénégalais yi nga xam te ne xamuñu Khalifa Sall lan la def Khalifa Sall dafa détourné un milliard huit cent pour sénégalais yi ko xamul un milliard huit cent la sàcc sax ay nguur gi un milliard huit cent Macky Sall yor preuve di ko ci topp loo ko tëjoon kaso man fi mi nag li ma ci metti rek mooy j'aimerais bien daal sincèrement su ngeen di débat ngeen débat ci ñoo xamante ne ñun les Sénégalais amal ñu njëriñ ñi ngeen jël dina indi ci débat bi sincèrement man gisuma njëriñ bi ñu amal Sénégalais yi quoi. yu film yi surtout temps yi mun naa ne jëmm ji nga xamante ne Sénégalais moom lañ jël muy Karim Wade waaw man sincèrement mënuma gis intérêt bi Sénégalais yi am ci Karim Wade quoi mënuma ko gis. yu film yi Karim Wade moo gën a bon sax Khalifa Sall mi ngeen gis Karim Wade moom moo gën a yées Khalifa Sall waaw bëgg yéen les Sénégalais ngeen xam loolu. gis ngeen doomu Abdoulaye Wade boobu cent quarante sept milliards la di tourné cent quarante sept milliards ñun la Sénégalais sincèrement sama gars yi bëggoon naa daal boo leen ñu débat sincèrement ngeen ñëw indil ñu ay nit yoo xamante ne amal ñu njëriñ mais kii xalifa Khalifa Sall kii di Karim Wade non bu doon sama sago daal ngeen génn leen suñu liste quoi waaw soo leen naa ne nag su ma juumul deux mois yi ñu génn yëpp sénégalais ñu ngi ñuy bëgg fa teg Karim Wade Karim Wade ma bëgg sama gars ngeen xam ne Karim Wade moom ngeen di forcer seen bopp kooku moo Khalifa Sall ñoo yem rek. waaw ñoom ñaar ñëpp dañoo dundee xaalis askan bi ñoom ñaar ñëpp dañoo sàcc alalu askan bi. yu fil mi bu leen foo ni Macky Sall dafa rànku ñeen noonu la téy leen tëj leen ci kaso bi de non non Macky Sall dafa yor ay preuve yu fil mi Macky Sall dafa yor ay preuve ñoom ñëpp ay am six ay neuf rek ñoom ñaar ñëpp ay sàcc lañ ay punkalum sàcc lañu ñoom ñaar ñëpp yu fil mi Karim Wade cent quarante sept milliards la sàcc Khalifa Sall sàcc un milliard waaw Choumi TV nag sincèrement dama bëggoon daal soxla ni débat noonu ngeen indi ñu débat bu ñu intéressé quoi waaw mais Uba Ndour nag na jéema a rek gis uma mu toog ci plateau naan day jégalu sénégalais non bu jégalu benn sénégalais sénégalais yëpp xam nañ loolu moo am sénégalais yëpp xam nañ loolu mooy dëgg. you know c'est un traître il a même trahi Ousmane Sonko. yu fi mi ñun ñëpp gis nañu moog Ousmane Sonko ñoo bokkoon benn idéologie moog Ousmane Sonko ñoo bokkoon benn yoon buñ jël moom ak Barthélémy Dias gis ngeen ñoom ñaar dañoo Sonko warkat la. loolu moom bul ci sax naan jàng ciy jégalu wala da ngay déformer say phrase sincèrement nag man chumi yu film yi damay bëgg seen émission jàkkaarloo bi ngeen gën ko organiser quoi seen émission bi n'est pas organisée mais ci bëri ci lu ngeen dégloon te rek waaw sincèrement c'est émission boo xamante ne c'est très intéressant mais du leen ko nëbb c'est très mal organisé ko sincèrement seen émission jàkkaarloo bi waaw nit ñi tooguñu fii rek di déglu ngeen di dàgg sant jëmale suba waaw mais sincèrement moom su fekkente ne dëgg rek tax ñuy wax moo xam mu nangu li mu wax moo xam mu bañ ko nangu mais li mu wax mooy dëgg waaw li mu wax noonu mooy dëgg Khalifa Sall dafa trahir peuple waaw dafa lekk xaalisu askan wi un milliard huit cent la sàcc Karim Wade sàcc cent quarante sept milliards ñoom ñaar si ay neuf rek waaw Choumi TV nag bëggoon leen wax ne leen sincèrement gis naa ne sama gars weer bii ñu génn yëpp dina am seen ñu ci bëri suñu les Sénégalais ñu ñuy bëgg bousiller ak Karim Wade quoi Karim you feel me gis ngeen ni turu Karim dem na ba mujjee puusul ay élection waaw ma bëgg nag sénégalais ngeen xam ne yéen yéen forcé Karim Wade pour mu jiite réew mi mais Karim Wade bëggul sax jiite réew mi you feel me il s'en fout du Sénégal ma wax leen loolu mi leer lijjantiwul Sénégal waaw tourné na 147 milliards am bu yàgg ñibbi dem yoon yoonam lijjantiwul sax Sénégal waaw Choumi TV bëggoon nag ngeen may ñu jàmm rek dimbali leen ñu rek ñun ñu ngi jëm ci ay élection bu leen ñu dugal ci ay débat yoo xamante ne nii une absence ça nous sincèrement Bouba Ndour su ma koy wax dama naan ko bro bul jégalu bul baalu loo loolu nga wax bul ci dindi dërëm parce que loolu moo am waaw Choumi TV mi ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm salaam di leen jox rendez vidéo